ay ca ka mbay daane tey loo ñeen ngay dalal. waaw da ngay def lu la neexee rek liggéey nu la neexee dan laa war a dàq. kookal la ku may dàq. saa. ndem si yàlla si ma mënoon a dàq. merci kese yow euh, je t'adore loolu tax bëgg la dina teg dina teg ay santage waaye léegi de ku nu santage nga am noo def ay waay jële wax nañ la li ñu lay wax yow it doo noppi te bàyyi coow li di ko ñaanal yàlla na fi gën a yàgg te wër sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké amiin ibn Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul gën fee yàgg ndax boo fi gën a yàgg rek ma gën a bëgg dëgg yàlla <laughs> tey nag ci Nepal bi baal gerte ngañ ah gerte gi sa yaay da koy tere di. sa yaay da koy tere ki fiy toog yaayam da koy tere. ngañ la sa yaay da koy tere de. tartan si mbaam. man saa yi terewul ma ko. saa yaay ki fi toogal la ko teral. saa yi terewul ma lii. d'accord tey nag ñu ngi fi am ki nga xam ne rek moom moo di ngañ bawal bawal. ak ki nga xam ne rek moom moo di maître Madické Niang. maître Madické nag sama mosoo dafa rafet. waaw waaye man tax yaa ngi koy xool merci beaucoup. maa ngi koy xool. yaa kay. ngañ nuyu nañu la. kon xaaral ma waaw dama la xeelu. sant yàlla sant sëñ Tuubaa. gërëm leen plateau bi. di nga am di teew. ci xam nga man dama nekk nit koo xamante ne bii multi façon laa. Mhm. waaw ku ne laay génn. takk nga waaw. ah nga polyvalent waaw xam nga garab goo laa nga nuroog moom. waaw kàkkatar expérience. savoir wiiwar. Mhm. wiiwar lépp daa koo doon. kon bu ma ñëwee ba toog ci plateau bi rek. di nga am pour donner la information. Mhm. di nga am wax ci expérience bi. te naa ni dënn bi passé ñëpp ko déggandoo ndax jooju. Mhm. dafa dafa dafa daje benn góor waaw góor ak jigéen la yu daje. kon daje ci nga dégg réetudoo ji fett fett yooyu wasaaroo ci dëkk bi. Mhm. moo tax ñëpp ko déggandoo. sant yàlla sant suñu tubaab aywa. waaye xam nga boo ñàkkee li nga waxoon rek li nga ko waxoon rek. boo ñàkkee li nga xam na argument da ngay xalaat. waaw comme ni nga koy waxoon keroog rek. ngañ danga kan ka yow. lu ah. lu xew nga bokk ci. lu xew nga dugal ma ci. Euh, yow waaw lu xew nga bokk ci. waaw yaa ma ci dugal rek. ñu dugal la ndax yow da ngay bari expérience. kan ka yow da nga woon euh, euh, kii boo gis niir boo gis. Hmm. am na niir bu góor ak bu jigéen. ndax niir te waxaat nga ko fii léegi bi nga ñëwee ndax dënn bi ni mu rëyee. kon ça veut ku góor beeg bu jigéen danoon daje. déet wax moom góor laax. ah d'accord ah, nay leer. <laughs> yaa waa kii ngañ. Mm. dañoo bëggoon na nga waxal nga ne. Mm. kii laay wax. lu mu def ñool waaw. ba mu la porté yow da ngaa fàtte sab laaj ba tax ngay. dama lay nii wala wala. am naa ar bii de am naa argument. aywa dama bëgg nga wax ma cere da bu daaw ak bu ren cere ju njëkk ja. ñu ko maam ji daan defee ak ren ñun xale yi ñun koy defee danoo bëgg nga wax ñu ko en tant que expert cere. billaay kii yama yab. woo góor gu ne lii di joxe dépassam nga naan ko cere daa ak ngir ma toog fi man di xàjjalay cere wallaay yaa ma yab loolu dañ koy laaj ab jeeg ya ma wàcc ca kër ga. waaw mbiram mbiram mbiram tey dañ koy bomb ngañ dala laaj rek yow itam nag tontu ko cere yi démb ak ndax man maay bomb cere góor góor gu ne léegi di bomb mais bay dugub yaa daan bay suuna ji bay dugub bu ma laajoon loo xam ci dugub ak daaw dugub ak ren ñun danoo bay dugub waaye nag bu demee nag bañ bojj ko ba defar ko ba di nga am dugal ci kii jigéen ña ñoo koy def mbir laajab jigéen la waaye man danga ma mës a gis fenn noonu la ngañ mii da ngeen ko romb muy soq wala muy wal mbaa muy mooñ wa mu naan ma ngay toggum ñeex ba nga naan ko ngañ kerek daaw kerek ren ci bomb ga noo yow yaa ma yëpp lii ñeme nga koo laaj sa jëkkër dama lay laaj rek ndax lii ñeme nga koo laaj sa jëkkër laaj ma beneen question bii dong la amoon amut beneen ngañ nag bii la préparé woon. yow ngañ nag. maa ko jox. nii nga gis nga bu la bàyyee invité kenn dootu la invité parce que moom rek moo lay invité. maa ko jox de question bi ba noppi dambat ko amul amul amul lu mu laajaat jeexal laajal beneen ñu xool ndax bu def réussir ñu xool question ba laaj bi léegi di war naa ko wax ko laaj ma ko mu laaj ma ko. yow ko ani ko laaj ma ko. ngir toog xool ko. de deux minutes deux minutes deux minutes yi xool ko dimbali bàyyil kii. waa déet ngañ bàyyil téere widd téere neutre. laay moom li laaj bi ma la laaj bi ma laaj dafa leer. cere yi démb ak tey xam nga ngañ yow suñu la ci laajee war ngaa jàngat. dama ah. wax ah, ko noonu bàyyi noonu. huis clos dafa xew. aywa. Mm, amul solo. huis clos. day day tax mu gën a xew sama di nga ko kii plateau bi nii laay def di ko xoññal bu mu jóg dem pa démissionné en direct ki xam nga ni kii kii kii bu doon garmi mi démissionné bu yàgg kii du démissionné plateau bii plateau boo xam ne saa fi toogee lii dal la ñëpp ree la boo génnee ci dëkk bi ñaar la wan question te doo bàyyi bàyyi liggéey bii te dem tëdd yaa ngi ni bëgg a cere ji suba foofoo sa place laajaat ma ngañ ngañ deman ngañ jaaxal la te daa yenu cere jama cere jam war togg suba moo tax mu ñëw ma ma dugal ko ci fu la mu yenu man ah. daa yenu cere fajar lay yeewu di dox doxi koy koy mooñ jeexal temps bi jeexal ñu def ma dikke ñu xool ban question lay génn <laughs> euh, jërëjëf euh, ngañ bawal bawal euh, di ko nuyu Sa Ndiogou mi nga xam ni man rek la bañ maa bëgg mbokk téléspectateurs yi ngir xam ko ndax heure bu ma dee sànq rek moom moo may sànq moom saa yoobu di ci di jaalaat encore sama bàjjan sama ñaa ngi koy jaare di jaare waa gépp nag dëgg yàlla rawatina sama papa bu jógee ci ngañ bawol bawol dañuy dem ci maître ma dikke ñaa maître ma dikke euh, ñaa dama lay sarax rek dama lay ñaan ngir yàlla rek ah, soxna si lan la lan mooy jafe-jafe bi macha allah ni ngi lay nuyu di la ziar di nuyu bokk yi nga xam ni noo nekk si réew mi kenn ku si nekk si turam ak santam di rafetlu bu baax te teewaay bu nga xam ni teew naa ko si sa plateau un journaliste professionnel. Mm-hmm. journaliste de qualité. yow soo laajee léegi buntu feeñ. Mm-hmm. parce que mu soo laaj laaj bu ñàkk xorom. Mm-hmm. say laaj day leer day baax. ñu déglu question pertinente. <coughs> ki yow la allah kii yow la ah, maître euh, ma dikkee. ma jëlee di leen aywa saa kii di liggéey nga koy tëkku. saa yi tamit saa kii di liggéey nga koy tëkku yooyu tamit saa tëkku na ko màttatu tëkku ko mu daw aysa waaw Sall tam bàyyiwul ci ah mais mais day liggéey wala liggéey. ngay def sa kanam mais avant ah non non poste. non ça ça ça liggéey baax. non non en tout cas 5 minutes des na 5 minutes abandon de poste am fi su kaay ñëwal non non ñëwal laaj question. 5 minutes ah non mais non non il faut nga ñëw laaj question 5 minutes a des ñëwal. temps bi duñ ko bàyyi noonu ñëwal. waa déet kaay laaj. kaay laaj question. non non non ñëpp ñëwal laaj. ñëwal laaj laaj ko ci màggal gi ko ci préparation màggal gi. bàyyi ko dafa bind. fooy la yor waaye États-Unis ñoom Massa Ndiaye léegi wan question la ñu tuddee. dafa bind journaliste bind ba toog. yow Sadio sa maa waxal li ngay wax. soxna si nag gaaw. <coughs> dégg na ne sa buntu kër daa taa. <coughs> <coughs> Eh, man dama daan faral soxna si bett na ma. sa buntu kër bu taa de mooy xibaar loolu xibaar la. buntu kër bu taa yow waxoon ma ko. kon li mooy sala invité ma. ma ñëw toog si plateau bi amoo lenn looy laaj lu dul buntu kër bu taa. buntu kër bu taa buntu kër kii dafa taa buntu kër kii taa. <laughs> bu dee lii rek la kañ laajal ñii kañ seen taataawut kër. man loo ma laajee. waaw mais yow da ngaa dafa. xam nga Touba waaw kay ndox bi fu mu jógee. waaw mais dafa am foo toll yow war nga prévoir war nga prévoir yow waa ONAS ni ngi waa ONAS ni ngi kii ndaw si non ndaw si billaay man léegi man maay kii léegi man maa moom mooy comédien bi wala man la ah yow c'est que affaire bi nag il faut ñu xoolaat nag sedd bi de yow yaay comédien bi wala man maay comédien ah non lii moom xamatuma mbir yi nu mu demee parce que yow non non non sukaa déglu ma ah non non non non ah, non non non non béti eh? émission bi bi ñu koy def hmm. dañu ne kii man maa woo moom mooy laaj man maa war a wax pour ñuy ree hmm. léegi bu fekkee ne moom la ñuy ree <laughs> problème am na àddina bi dafa dëpp wala kaskia kon donc man sama sama yow kon man sama jàng sama ñàng moo ko daan moo ko daan non loolu rek mooy sa jàng yow sa jàng laaj la sama ñàng yaa ma ko yow léegi yow plateau bi yow ñëpp yow lañ def comédien <laughs> ah non su kaa nag démissionné. démissionné naa. ah naa démissionné. bàyyi na ñun la xamuñu léegi lan mooy solo. parce que li nga bëgg laa lay defal yaa may wax. yow su ma ñëwee ban la saa lii. waaw non non non mais c'est que boo ñëwee tiitar bi ngay jaay ci kër gi. saa <laughs> xam gaawal ah. tey lan la ñuy def. ma ne ma di kekki lu ma koy laaj. nga torox te mu ful la gëm yaa ko lu ma koy laaj. ma ne ma xaaral attention. <laughs> nga ne ma ne ko. <laughs> ma ne ko da nga naan ko Madické sa mhm. <laughs> sa buntu kër gu <laughs> ma ne ko suka loolu nga wax mu ne ah non non saa la waxal rek barki yàlla dama pièce ma ne ko non pièce su ma la sa buntu kër bi eh. mu ne ma mu ne ma loolu question la sa buntu bu taa ma ne ko question la kay mhm. sa diggante yàlla du pièce. sooy bu dimbali ñu filmeel ñu loolu waaye daw si bu ñëwee tiitar bi ak daw si il faut ñu teg il saa Ndiogou su kan sa nawle bay na ma dëgg yàlla saa non saa saa lii moom moom bilaay noonu waaw bàyyi bit yéen yéen fekk loolu ndaw saa parce euh, man damay arrêté de te bu ñëwee yor fooy moom chaque jour dina am fooy saa lu ñuy def ma ne ko non sukaar affaire bi tey Madické ngay jëm ne Madické ci lan nu ma koy laaj dama koy laaj ma ne ko noonu buntu këram dafa taal. <laughs> Ah, buntu kër bu taal. saa buntu kër bu taal loolu question. ma ne ko waaw ah, question la parce que maître ma dikkee demoon élection buntu këram taal. ay mu ne. seex bi bi de ne nii. dama dama pièce. ay ca jaajëfal nañ ko kii yaa mën ngaa ñëw jël sa plat yi ñu ngi lay euh, jaajëfal waaye dañuy jaajëfal euh, Sanjogu Mbengue ak Souka Mbaye ci Nepad musical di leen euh, remercier bu baax a baax encore une fois.